xam nga affaire bi nu mu demee mooy euh, fii boo seetloo ñun 19 quartier la Alaaji Paate si Kër Masaar la bokk mais village la boo xam ni 19 quartier la ñun nag fii boo seetloo xam nga yaa rien déjà fii amul dara benn école moo fi am élémentaire te école boo demee abri provisoire moo fa am boo demee sunu case de santé fi ñu toll nii case de santé mi ngi si biir ndox mi xam nga si 19 quartier fi ñu toll nii booy boo seetloo fi boo génnee. jour boo xamante ne jour ouvrable la ak jour boo xamante ne jour fête la sax doo ko xàmmee parce que déjà fii ñi fi dëkk ñi fi ëpp dañoo néew doole léegi man tout le temps damay nekk nag di kaas di wax si rajo yeeg si réseaux sociaux yi nii bon fii dañoo fàtte président nañu fàttaliku parce que ñun tamit si si si réew mi lañu bokk et puis ñu ngi si biir Dakar fii si Kër Massar vraiment kooku président war xam naa daf si jotul mais bu si jotoon dinañ mën a kii man si yooyu rek lay faral di ñàpp benn jour nag mo premier juillet

ni ñëpp di yuxu naan papa pa pap pour ma ma ma wax comme que man tout problemi temps ma ay e cas yi ñu manké ak fi problème yi fi am nit ñëpp naan na pa wax na pa wax biñ né na pa wax les gars ni kon journaliste ni kon pap na wax man bima waxé wax nak dëgg gi moy gëni fi dara amu fi amu ñu yoon tali amu fi ba légui min ay minicar yu yo xamanteni boko boo san pour nak ye xari la ci lañuy bo ñëw fi yow gis nga ci lañuy ñuy dugg léegi bima ma bim bi bi bi média bi ñëw ma wax lolu ak manifestation boobu nu mu réyee vraiment ñuy wax ni sax journaliste manifestation bu toll nii euh, si banlieue bi mi ngi doog am ma suñu ko gis xam nga affaire yooyu depuis lors nag si la ma maire bi singlé xam nga après boy yi bind si miir yi pour maire bi na fi jógee bëggatuñ ko parce que amaluñu benn njariñ mënuñu defal sax may classe xam nga ñi ngi ci ay di jàng ci ay foog xamante ne mooy affaire yooyu ay partisans am jóge benn quartier bu ñu naan sant yàlla si biir 19 quartier yi dem Daaru Salaam di effacer si bind di effacer bind yi xam nga man foofu sama place benn bi fa la nekk bi ma demee dégg coow yi gars yi woo ma téléphone ni ma pap pour naa ñëw arranger ni parce que am na ñuy effacer si bind yi fii mais booy ñu ngi bëgg a xeex ñoom man leen man sama yoon nekk si du ma ñëw. pay woma ni ma nyore ma rek ma to ma waxe xale yi ñoom daañ toog ma ñëw ni leen yéen ay magum jëmm ngeen ay partisan maire bi ngeen war leen jógee quartier bële ñëw ci benn quartier bi naan da ngeen di effacer ay maire dégagé dix dix ans kooku mom dafa dafa amul sax ful la affaire yi ben la moom benn ben benn femme mbo xam ne mom moom ñooy ànd ñi nga xam ne benn école privée bu nekk fii boo xamante ni ak jabar lañ ñoom lay andal ñoom la jox lépp lu wàllu bourse ñoom la ko jox te ta école privée lañ yor si la ma koko nak pes mooy partisan bu jigen bi couple bi ku jigen ki moma pes man nak ma am sama mat xamni ni dañ may wut ma baña fayu bi ma bañee fayu après ful bi tas ñu dem ñibi pour man fama nek di jaay gendarme ñew jël ci mom laaj ma lu xew man len lu xew ñu ni ma no maire bi neena yow yaa sakaje yaa auto om yaa ya ni du fi dugg ay dugg man len man dama ngi di jaay man yeguma sax limi wax ni ya gendarmerie jël ma yobbu biñ démé ñew ay def enquête yi xam ki maire bi li wax dara du ci dëgg ñu bàyyiwaat ma mu ñibbi sama kër première fois bobu nak def ma plainte fan ye simbu gayne bi mu amé man yeguma ci dara ma ngi sama man dama démon ben mariage fii danaka bi may yëg affaire bi 21h moins mo jot ma ngi sama kër bon ma xey dégg ci media bi maire bi ni wala pap mo and ak xalé yi ci kërëm man yeguma lu géegi di riir man yegumon sax ni sama jarbaat sama euh, gora bi jam nañ ko sama rakku jabar mo top sama jabar legi bima ma dem ñuy topato kayit di man ak parents yi parce que ñeneen suñu kër lañu fanan bon ma dégg ñuy dem na tës mu demee tes expliqué boobu tuddul tur mais mu dem si yenn réseaux sociaux yi ay Seneweb ak yooyu ni Pape moom moo ànd xale yi sakaaju këram waaw comme que man man néew doole laa man machine wal rek laa yor di wal xam ko kooku moom bu fekkente ne à chaque fois député maire bi mu ngi lay attaqué boo moytuwul kooku da la bëgg dafa bëgg yàq sa àdduna yàq sa njaboot néew doole kay doy na mais bu fekkee député maire bi mi ngi continuer di la attaqué nii dèjà mooy deuxième fois bu njëkk ba yóbbu woon na ma manifestation bi jàllee yóbbu woon na ma tay tamit bi affaire bi amé yeguma tinuma man la gendarmerie woluma ni wala maire bi néna ya ya ya ya and xalé yi sakaati garam ma ga no man yeguma sax ni won sama sama goro demone demoon sumboog yi ma xam yeguma ci dara parce que lu am 19 h xaw 18 h yow yang kay ak ay 20 heures mooy kooku yakarna bo boo bo boo seedee def yi kon tard nga tardé xam nga légui nak tay nak fiñ toll ni dama dem dem dama dem dama dem euh, gendarmerie bi ma gendarmerie def plainte ñu ne ma dafa nekk ci institution ñoom duñ ko mën a woo mook ñaar ñi ma ko booleel plainte mel na ah kon amul problème léegi nu ma war a def ñu ni ma foog nga kon foog nga saisir procureur xam nga foog nga adressé ko procureur ma bind sama plainte dem tribunalu Pikine dem gis secrétaire secrétaire procureur bi jox ko sama plainte mu jox ma sama euh, reçu dépôt ma ñew tok semaine prochaine lañ lañ lañ lañ ma jox rendez-vous ma ngi xaar nak comme que euh, Sénégal mom bo fi newé dool man lima maire bi accusé ñaar yoon moma yobu gendarmerie te du du fekk na man maka def yeguma ko sax bu doon man bu fekkon man maka ci accusé won ben heure bi ma ngi tëdd ci kasso bi xam nga Sénégal fi mu toll nii néew doole yëpp ngi ci kasso yi fi mu toll ni nii ma maire bi def bu fekkon maka def ma ngi ci kasso mais comme que moo def te mom amna doole man déjà dama new doole mais na dem rek kalaame yoon pour ñu xamni vraiment mère bi moy atta mi ngi attaquer fi ko xamanteni yonam yoonam ci affaire yi boobu ba legui diko ko bëgg di ko bëgg tëj mais heureusement sa yu may accuser day fekk man wax deug yalla daf may fekk sama liggéeyukaay kay duma ko sa yek waaw tay nak defna sama plainte ci procureur di xaar nak ba xam nak yoon dina def liggéeyam ou pas parce que bu doon néew doole yi daan def seen liggéey daan def daan def seen liggéey mais bu dé ko am doole nak mom fi senegal mom yaa nga xam dama plainte ni rek pour pour nous pour ñëpp dégg pour ñu xam vraiment bu ma yéexee man sama parce que député maire bu demee attaqué koo xam yor à chaque fois wax dëgg